que amul échec ci seen ni ngeen waroon assurer déplacement nit ñi ak quiétude sénégalais yi nga xam ne ñoo leen jox réew mi est-ce que bu fekkoon loolu taxaw na dëgg nit ñi dinañ doon am boobu boobu fitna ak boobu ragal. jërëjëf euh, maa ngi nuyaat ñëpp encore di gannaaw ni ma bi ma suñu kilifa diine yi dama bëggoon profité aussi nuyu suñu armée nationale. parce que aussi comme ni nga ko waxee semaine bi aussi disons ginnaaw suba. mooy suñu fête de l'indépendance maanaam bu ñuy sargal suñu république suñu armée ak suñu ndaw yi euh, di profiter di ñaawlu aussi justement parce que loolu dina fexe ba mu ñëwaat ci beneen sujet bi attitude du une partie de l'opposition maanaam Yewwi Askan Wi bi nga xam ne dañu leen invité ci 4 avril bi nga xam ne république bi Sénégal yëpp ko bokk ñoom ñu ne duñu fa teew te loolu mooy ñaareelu yoon en tout cas ñuy wone ne seen en tout cas maanaam compagnonnage ak république xaw na doy waaru parce que bu ñu naree sos aussi bureau AMS madame kuréel boo xam maire Sénégal yëpp la ëmb depuis toujours amul opposition amul keneen ñoom dañ ko boycotté ADS ñu boycotté ko UAL ñu boycotté ko dafa mel ni en tout cas fu république bi feete ñoom dañ koy boycotté damay profité aussi de vraiment de, du local président de la république bi nga xam un am hauteur invité leen moom en tout cas wone na ni république bi la fi nekkal Sénégal la fi nekkal maanaam bëgg na bu ñuy suñu raaya bi en tout cas suñu république buñ koy sargal ñëpp teewe malgré euh, situation bi am euh, par rapport à l'opposition euh, li nga wax aussi moom loolu yëpp moo indi li ngay wax maanaam l'état du Sénégal c'est un état de droit ci démocratie lañ nekk bu dee par exemple am na ay activité maanaam mel ni procès te mu am ñi nga xam ne dañuy woote fitna ñëpp dégg leen ñu ne dañuy woote fitna mais Sénégal li mu war a def président de la République ak gouvernement li ñu war a def mooy aar askan wi ci loolu lañ nekk depuis début procès bi ba euh, épilogue bi ngay wax noonu te gëm nañ ne en tout cas état bi moom assuré na euh, devoir am mooy aaru kaaraange fexe ba ñu bañ a yàq euh, moomeelu nit ñi fexe ba ñu bañ a rey ay nit donc lolu en tout cas gëm nañ mais aussi jëndé nañ ko ville morte parce que ñëpp xam nañ al alxames mom Sénégal euh, lu bari doxu fi rawati na fi ci dakar di capitale bi. waaw lolu mom responsabilité il faut <laughs> il faut nga am kan kan moo ciy responsable. comme ni ma ko waxee ñiy woote fitna mais en tout cas ñom ñoo indi lolu ñom ñoo wara gaddu responsabilité bobu puisque bo euh, wootee nga ne man ci jouru tel. woo naa ñëpp nañ ñëw résister def li wala nañu indi fitna wala nañu toj ay nañu taal dëkk bi loolu yëpp dëgg nañ ko mais nguur bi lu muy war a def mooy fexe ba en tout cas kenn du fi taal dëkk bi euh, pour ñëpp am jàmm. waaw yaa ngi ñaawlu waaye Yewwi li ñu ne invitation président mais est-ce que président li muy diwoo xeeñ na ko ndax. boo xoolee fitna bi am ci digganteem ak opposition bi manque de dialogue bi am ci digganteem opposition mais aussi décision unilatérale yi muy jël ci lu jëm ci élection yi té du ci concerté wu avec euh, les membres de l'opposition opposition rawatina yeewe askan wi décision unilatérale mom gisuma benn bu président ci affaire élection boobu mom xanaa nga expliqué ma ko def nañ fi concertation nationale mhm. <laughs> ñëpp teew en tout cas presque opposition yëpp teewee ko suñu euh, institution ñu ngi dox euh, élection yi euh, nous, ñu ko waree révision de euh, révision liste électorale ak euh, fixer date élection. Mhm. loolu yëpp gisuma un problème ci ci ci. révision il a fallu que nous tapions du poing sur la table pour que nous mën fixer une date. et un non non a tape du poing sur la table la mhm. révision dafa mus a am. ci veille élection mais dafa am app bu ñu app boobu génn nañ ko joxe nañu ko euh, ce sera du 6 avril au 6 mai loolu je pense que Ken mënul wax ne am na problème ci loolu donc gisuma fenn fu ñu wax ne euh, euh, président mu ngi jël ay dogal unilatéral à part li mai pour organisation élection yi di ñëw donc gisuma benn en tout cas maanaam argument bu war tax ne opposition ñu ne mu am pàcc ci opposition bi nous euh, monsieur le ministre euh, euh, Nous ne mais mais nous l'opposition au Sénégal entre arrestation manifestation manifestation pour un procès Nous nous 400 personnes nous ñi sax ñu ay euh, parfois des délits d'opinion du yobu nit nit ci bi est-ce que ñoñu bo invité leen ci bëss bo xamné la fo ak rétane dañ la aussi non xam nga aussi ça dépend euh, déjà euh, Madame, manifestation Sénégal Puis, apparemment li ñuy tere ak manifestation matul boo jëlee téeméer demande peut-être benn lañ dul autorisé mais loolu aussi c'est que ñi koy autorisé ñoom dafa am fu ñuy sukkandiku pour bañ ko autorisé parce que bu ñu gisee ne bu ñu bàyyee lii mun na indi ba ci réew mi duñ ko autorisé li ci des mooy Euh, euh, dafa am ñu ñu arrêté mais sénégalais fii kuy dem yoonam di dem di dikk defoo lu ñaaw kenn musu la arrêté donc ñu ñu arrêté il faut que nga wax ma ni ñooñu li ñu leen arrêté du yoon du dégg ma door a door a wax ci loolu mais gëm naa ni fii Sénégal euh, bu ñu demee ba jàpp la tëj la wala en tout cas jox la bracelet électronique c'est que am na lu mu waral loolu à ku ko deful nag xam naa ni heure bi yaa ngi yaa ngi sa kër kenn du la sonal alors nanguwuloo loolu mais universitaire nga intellectuel bu mag Eh, loolu noonu bokk na ci li ñenn ci intellectuel yi gis ba bind benn bataaxal dippeeku revenir à la raison parce que jàpp nañu ne eh, dañuy utiliser li nga xam ne mooy wàllu ku yoon eh, pouvoir exécutif di ko jëfandikoo ngir bundu xataal ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci kujeg politique bi bi fi mujj di Hadjibou Soumaré ñu woolu ko pour des questions interrogations yoo xam ne posé na ko est-ce que loolu du ay raison aujourd'hui encore de plus ci tax cette situation très tendue entre l'opposition et le pouvoir non non mais universitaire yi ngay wax noonu ma maanaam intellectuel du ñëpp du ñu ay universitaire sax d'ailleurs intellectuel ñuy bind loolu mais ñoom daf damay laajte euh, ñun sax dinañ leen tontu incha allah mais euh, xam nga man may euh, coordonné kuréelu universitaire yi ñuy far ci APR am nañu aussi CCR maanaam convergence de cadres républicains ñun kan gënuñu upp la fii intellectuel ak cadre intellectuel yooyu man c'est que dama dama gëm ne dafa am fu ñu far parce que aussi mënoo nekk ci dëkk nga ne intellectuel nga nga gis ay opposants ñu ne dañu dañu bëgg a jël bakkanu président de la république dañu bëgg taal dëkk bi dañu bëgg def lii ak lii dañu bëgg a def lii ak lii yow nga noppi ci loolu ba pare jékki-jékki rek chaque fois que président moom bu jëlee dogal pour dëkk bi nekk ci jàmm ak salaam ngay bind nga ne eh, di ñaawlu loolu donc je pense que intellectuel yooyu dañu war a xoolaat seen toogaay

le département d'état américain moom moo ko jiitu beneen bi FIDH également euh, Fossil ay rapport euh, ci li nga ramené, ne moom Ak, àq ak yelleefi doomu aadama fii ci Sénégal nga xam ne nañu ne de plus en plus quand même dañu koy bundu xataal euh, loolu rafetul ci image yu Sénégal et vous ne l'acceptez pas pourquoi non déjà man comme li nga wax man je suis universitaire mathématicien ñun mathématicien moom maanaam excès de critique sax maanaam moo gënal am critique parce que c'est la critique qui fait évoluer les choses waxuñu kenn du critiquer mais boo ma critiquer boo indiwul firnde yoo xam critique boobu critique bu objective man dama lay wax ne critique boobu du critique bu objective ma indi le man tamit samay réponse samay samay argument loolu rek la gëm nañ ni ñoom li ñuy critiquer noonu en tout cas dañu dafa dafa mel ni far lolu, ci ci intellectuel yi ngay wax noonu euh, ci ci maanaam ci ci ci ci ONG yu nek fi ci Sénégal ci ci yenen fàll ay société civile ñoo xamné ne dañuy mbubboo société civile jékki-jékki nak d'ailleurs ñu feeñ fenen ñu ne man sax finalement euh, bokk naa ci parti bi wala dem naa ci ci ci bi parti donc lool moo nak c'est-à-dire que il faut pas aussi parce que nit ki euh, ONG Europe la jóge wala fenen la jóge lu fi wax ñun ñu ne ko waaw dégg la ñu ñu japp ko ñun